jaaxal lool jaaykat yu bëri rawatina entreprise yu bëri yu ne fii ci réewum Sénégal ne tey Sénégal dooleelul euh, Madine Sénégal ma ngay sànq li Sénégal am bo booba léegi yéen a kaabi Walf Quotidien ci jamono joo xamante ne nguurug Sénégal ma ngi ko doon ndamoo rawatina yi tamit euh, di euh, taxaw tembe ngir joyantiwaat koomu Sénégal ci waxtu googee nag la jëriñ ñu dénk wàllu koom di sànke entreprise yu bëri kuréelu syndicat ya ca yëngu ne dàquñu sax ba amal doxum ñaxtu ak i fexe ba nguur gi deltu ginnaaw Walf Quotidien moo ñu ko yëggee l'évidence ne ci jamono jooje askan wa yeewoo ca Podor rawatina ca Dodel fas yéene nañu yëggee seen jafe-jafe njiitu réew mi Macky Sall mi fas yéene amal ngan ca bët gànnaaru réew mi ay morsoy xonq cur lañ ko fas yéene euh, teeroo foofee ca Dodel yéen kaabi di laas ne gisewaat nañu seen biir Aminata Touré ak njiitu réew mi Macky Sall waxtaane waat nañu lu bëree bëri yéen kaabi di laas taxaw ci doxalinu njiitu réew Macky Sall euh, taxaw na tembe ngir giifal ñi fi jotoon a am ñëgg-ñëggu xol bu weesoo Aminata Touré dina dalal ci lu yàggul Mouhamed Boun Abdallah Dionne fas yéene dalal itamit maître Alioune Badara Cissé mu ngi ci laas ci xëtam bu njëkk bu dee turbine moom am na taxaw seetlu mu def ci Mimi Touré ak njiitu réew mi Macky Sall seen gise googe amul waaw amul déet gafa jib yéene cabinet njiitu réew Macky Sall sax am na ci loo xamante ne mu ngi koy dox ci jamono ji daanaka xam na la mu bëgg xam na itamit fa mu jëm wute lool ak premier ministre gawoon di Aminata Touré mi kenn xamagul ban lay jiital lu mu bëgg euh, turbine moo ñu ko yëggee yéen kabi di l'info ne yëgg yekk nañu lu mel ni xeme Adama Faye di goro bu njiit réew mi Macky Sall mi jota ñaawlu doxalinu nguurug Macky Sall nguurug jaay dooleek euh, bokk na ci salfañ salfañi nañu wàllub yoon Adama Faye xamle ne neex naqari candidat lay doon euh, ca commune bu Grand Yoff loole nag métti lool ay ñooñam ci mouvance présidentielle bi Cheikh Ba Cheikh Bakhoum méttit lu doxalinu Adama Faye ne warutoon a waxee noonu Las Badiane moom ne na Benno Bokk Yaakaar day jël matuwaay ci lu gaaw ci euh, ki nga ne mooy Adama Faye euh, Dembourou Sow ne bu sañoon sax ñu jëlee ko ci parti bii di APR yéen a kaabi di l'exclusif mu ngi ñu dégtal élection locale yi bokk na ci ay jegeñaale njiitu réew Macky Sall nar nañ ko jural jafe-jafe Mansour Faye euh, di goro njiitu réew Macky Sall Adama fay di goro ak i tamit Aliou Sall di rakk ci njiitu mi Macky Sall yéen a kaabi boo jëlee ñetti ñile daanaka demal ca Géejawaay kii di Seydina Fall Bougazelli bugatul gis ñaan ne eh, dootul xaar benn yoon ñu bàyyi Mansour fay mu faluwaat ci bopp réew ma eh, bu dee nag ci bopp eh, Saint-Louis bu dee nag ca Grand Yoff moom ay responsable APR jot nañ faa fippu Las Badiane yekk nañ lu mel ni xeme ki nga xamante ne mooy Adama fay ndax doxalinam yéen a kaabi di source mu ngi ñuy dégtal ne Mary Teuw Niane kenn mënatu ko te ci élection locale yi neex na xari dina ci dagaan baatu askan wi source moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk la mu daj ca France démb mburu daju ko ci taal moom Emmanuel Macron da dañ ko fa mbéj mbéj gu métte métti waaja mu doon euh, jox loxo ngir nuyu ko ja taxañ loxo ba daal di euh, daanaka rallit euh, mbéj loole nag doon lu gësam lool France ci jamono ji francois Hollande ne jaadu tool jaaduwul benn yoon ñuy nasaxal wala boog di gàkkal wala boog di fitnaal ab njiitu réew ndax loole mun naa xajamal lu bari ci wàllu démocratie bu France direct news xëy di laajte ndax mbéj googe jibee ca France ndax du dem ba law ci Afrique ci suñu njiitu réew yi yéen Eh, dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko gi fagul eh, bu ñu sukkandikoo ci Françoise Hélène Gaye daanaka gàddul na eh, combat bi aji Sarr moom mi yekk lu mel ne xeme Ousmane Sonko ne bu ñuy xool homme d'état nañ ko xooli feneen waaye nag war ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko munta doon président bu Sénégal ëllëg Françoise Hélène gars yi jàpp ne du jinjàk uh, Ousmane Sonko la Adji Sarr deful dara uh, te ju seetaan benn yoon ñuy neewal doole ki nga xamante ne Adji Sarr waajuru Adji Sarr wax na ci biir yéen kabi réew mi quotidien uh, jot naa jégalu Ousmane Sonko waaye nag jégalu na askanu Sénégal ci fitna gi fi jota am ci weeru mars gi weesu ba ay bakkan rocca waajuru Adji Sarr yemu ca jot naa itamit xam ne ne bàyyiwul doomam daanaka boobu léegi mu ngi toppatoo di taxawu doomam leneen itamit lu mu jot a weddi ne amul benn koppar gu ci nguur jëm ci moom euh, day luwe ci jamono ji oto ga muy dawal def ko ab waajuru aji Sarr moo ni waxee yéen kabi di libération ne am na liberté moom booy jinne mi amoon liberté ci lu yàggut euh, gannaaw euh, bu mu rëccee ci kasob camp pénal tegaat nañ ko loxo delluwaat nañ ko ndungu siin waaye nag dossier am googu lu bari moo ca laxasu bu ñu sukkandikoo ci section de recherche mi teg loxo ñett ci ña doon wattu kaaraange ga ci kasob camp pénal yéen cabinet la ko rëccaloo ca kaso ba jombul am nañu ko ca jàppale ci biir kaso boobule yéen kaa bi di la soleil xëyee prostitution métier la gu fi yàggu lool enquête gu yaatu nag la soleil xëy amal ne métier googee am na ñu koy jëfee ci euh, mim réew euh, bokk na ci jigéen ña cay jaay seen bopp kenn seenatu leen ci mbedd mi ñu bari ña nga ci appartement yi euh, fa la ñu nekk puce marketing ya ñu jëfandikoo réseaux sociaux yi tax na sax kenn mënatu leen a seen ci mbedd yi bu ñu sukkandikoo ci le soleil l'observateur xëy du ñu dégtal Matar Ba jër gi ñu denk wàllub tàggat yaram melokaanu stade yi rawatina la xew yàggu wut ca stade Lat Dior doon na lu euh, gàllankoor ak itamit euh, lu euh, jaxase doxalinu Matar sa Matar Ba mi ñu dénk wàllu tàggat yaram stade yeeg seen melokaan xajamal na liggéeyu jawriñ gi yéen kaabi di record ne record gàngoog daanaka suñu gaynde def nañ ko démb ñaari bal ci dara la ñu dóor Cap Vert yéen kaabi ne gaynde jëmmalaat nañu seen bopp laata Coupe d'Afrique Coupe du Monde gi ñu jëm yéen kaabi di stade taxaw ci googule jaloore ne équipe nationale bi mooy fukkeel ak juróom-ñaareelu yoon dugal 2-0 yéen suñu lamb xëy géewal bombardier ma ngay artu ëmm seen euh, mi mu xamal ne mi na pikin dugg na Pikine daan na fa euh, Tyson bi la yoon yem ëmm seen na nga def ndànk ci sama mbir bombardier moo ni waxee ne saay buñ leen géewale ñoom ñaar euh, dina xam ne xam na pikin te itamit du guleet mu fay daan mbër bombardier moo ni waxee ci suñu lamb. ndaayaan imo distribution ak gaamam bi di warga ndaayaan ceebu ndaayaan boisson ndaayaan ak seen agence techno habitat mi leen di sàmmal seeni bien immobilier ñoo leen doon may li ci yenn yi. café golden café golden café bii yee seen yëg-yëg te di leen jàppale ngeen yendu ci bés bu ànd ak dal seen café golden am na ñetti gaam yu bokkul benn bi ñett la en na dafa am meew kafe ak suukar ci fukki dërëm dong beneen bi kafe ak meew ku bëgg nga yokk sa suukar waaye nag café golden fàttewul benn yoon amateuru café classique yii dañu am café sec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 jaajëf jaajëf Abdoulaye Bopp ñu lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci lañ yëkkatee jotaayu xibaar yi di sant di gërëm bu baax a baax ngir jot suñu ay vidéo di di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international